الصناء ورلوان بلا سقة مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من عرتالنا وفيها جم منصارا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 salaatu wasalaam ala rasulillah barke xaadimu rasul bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yi sayduna muhammad salallahu alayhi wa ñu ngi santati sunu yaakaar tey ak ëllëg xaadimu rasul di ñaanal saahibul fadila cheikh mahamadul muntaxa ibnu cheikh mahamadul bachir mi nga xam ne moo toog tey jotaayu cheikhul xadim yal na ko fi suñu borom doole yàggal te may ko wér ba mboolem naal yi nga xam ne naal na ko yëpp mu àggale ko ba naalaat te ñu ànd koog moom ci barkeb Serigne Touba. di ziare kilifa yëpp ci turu soxna maam isa Mbacke ahlu kafe moom sëriñ Modou Fati Xari moom Serigne Mazamba ñu gën koo xam ci soxna maam Issa Mbacke ahlu café ñu yëkkati nag ay kàddu ci turam di ko jëmale ci bokki taalibe yëpp. waaye cant yi nag ak ngërëm yi ak ñaan yi niñ ko waxee Cheikh Mamadou Mountakha lañ ciy jiital moom mi nga xam ne mooy boroom liggéey bi te boole ñu ci liggéey bi ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg noo sant te ñu yàgg koo jëfe te suñ borom dañu ci defal ay ndam yu baree bari nim ñu ko defalee ren ak at yi ko weesu woon yàlla na nu ko defalee noonu déwén ndax Cheikh Mamadou Moustapha daa waxoon ne ñeewuma ko tàmbali ku àggale laa ñëwee. kon ndogu yi bu ñu ko tàmbalee benn fan ci weeru koor ba suba di séenu bu njëkk te dara musu cee rëq lu dul niñ ko bëggee rek lay amee loolu loxol Serigne Touba rek moo ci tàbbi kon nag cant gi ñu ngi ciy jiital sant Cheikhul Khadim di ñaan yàlla mu dolli ñu ko fayal ci barkeb Serigne Touba soxna si tam nee na mi ngi sant mbooleem bokki mbàkki mbàkkeem yëpp ñi mu àndal liggéey bi ñu di fi teew ak ñi fi teewul di sant tam ñi nga xam ne ñoom la ñu séqaloon liggéey bi muy waa daara Hizbut Tarqiyyah ci njiital sëriñ Youssou Diop ak mbooleem ñu topp ci ginnaawam yëpp ndax liggéey bi ñoo ko ànd te lépp rafet na di sant tam fédération ahlu kafe yëpp moo xam daayira yi nekk ci biir réew mi ak daayira yi nekk bitim réew waa diaspora bi waa sous-région bi waa réew mi waa Touba ñu ngi leen di beralaat seen cantuk bopp mboolem njiiti daayira yi ak daayira yi nekk ci biir réew mi te teew si woon fi ak yi nga xam ne amoon nañ yéene teew si te mënuñoo teew ñoom ñëpp seen seen seen yéene tàbbi na ci biir liggéey bi te pas-pasub soxna si ñun ñëpp mën nañ cee eh, tonawu kon ñu ngi sant bokki bi yëpp di sant tam mbooleem xale yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi tàmbalee ko ci xale yi kafe gi sëñ daam mi jiite liggéey bi foofu ak mbooleem commission yi nga xam ne ñoom lañ taxawaloon ñu nekk ci kër Serigne Touba gi soxna seeneen mi ngi sant ñëpp di sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo indi tey te fekk ñu nekk ci tëj liggéey bi muy soxna maam na bu Mbàkke moom sëriñ Abibu di sëtub maam sëriñ Afiya te maam sëriñ Afiya ak Seex Mazamba bokk sëriñ Mor Anta Sali ñoom ñëpp di rakki sëriñ Touba waaye ñu jaayoon bokk gi ñu bokk ak sëriñ tubaa jëndi ko ak taalibe ba sun borom boolewaat seen i sët tey ñu ànd di liggéey sëriñ Touba ci seen kipaaru maam loolu yàlla na yàgg te sax ci barkeb sëriñ Touba di sant tam daayira bi nga xam ne moo nekk mbal te sëriñ Cheikh siise jiite ko ak sëriñ Moustapha Dieye mii nga xam ne kenn la ci soxna si ñu ànd ak soxna Fat Daam ak mboolem waa mbal tey jii nag ñu indi fa ay ndoge yoo xam ne wax dëgg yàlla eh, ku ne xam na ne yéene lañ ci feeñal ak pësteef te bi leen ko soxna si waxee sax yàggut waaye lépp loo sumbal sëriñ Tuubaa te defee ko pësteef rek sëriñ bi dala cay fekk dimbale la kon nag soxna si nee na xolam sedd na bu baax Serigne Moustapha yow ak Serigne Cheikh ak soxna maam say ak ñi ngeen àndal ñëpp ci tiraanga yu rëy yi nga xam ne def ngeen ko tey mu bàyyeekoo ci kër maam Cheikh Afia bàyyeekoo ci kër Cheikh Mazamba del siwaat fii ci kër sëñ Mazamba waaye del siwaat ci kër Serigne Touba ndax ku tudd mbal tudd sëñ Mazamba waaye ba ngeen ko jëlee mbal ci turu sëñ Mazamba tam da ngeen ko indiwaat ci jëmmi sëñ Mazamba muy soxna si kon nag yal na leen yàlla fay lu koy seen nii ngeen ko defee ren ngeen defee ko nu ko raw ci barkeb Serigne Touba te képp koo xam ne tàbbal na ci aw ñaxam lu mu néew néew yal na ko suñ borom ful ci barkeb Serigne Touba ndax suñ borom ma wax ci al alquran ne wa ma anfaqtum min zayin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru rasixiin loolu nag war naa dalal xelam képp kuy jël alalam di ko def ci yoon yàlla moo xam ne lépp lu mu jox yàlla sun borom lu ëpp loola ma nga fa moom te boo joxe rek mu lay jox kon nag li ngeen joxe su ëllëgee yàlla na leen jox loo xam ne li ngeen indi tey asaka lay doon ci déwén ci barkeb Serigne Touba di sant bu baax tam kuréel yi nga xam ne soxna si dafa bokk ñoom pësteef ndax soxna si kuréel yu baree bare yoo xam ne ay barab la yu Serigne Touba jaaroon dafa lëkkaloo ñoom ngir bëgg liggéey bépp di benn liggéey ndax Serigne bi daa wax ne fu ma jaar jàll wala ma dëkk fa wala ma toog fa benn jotaay maa ngi ñaan yàlla mu jollil fa leerug rasulullaay te bu mu fa jógati moo tax barab bu Serigne Touba mas a jaar rek leerug yonent bi jolli na fa. Gabon eh, kuréel bi nga xam ne ñooy toppatoo jeexiti sëriñ bi Gabon liggéey booba soxna si da cee bokk muy karawaan maa yomba di ànd ak ñoom ay liggéey di bàyyeekoo Sénégal di dem Gabon di leen fa fekk ñoom itam ñuy jóge foofa di ñëw fii di ànd ak soxna si ci liggéey sëriñ Touba bi kon ñooñu ñenn lañ ci kuréel yi nga xam ne dañoo lëkkaloo ak ñoom waaye sëñ Mouhamadou Lamine mii toog ak sëriñ Habibou mii dañoo bokk ci kilifa yi nga xam ne dañuy taxawu la sëñ Touba bàyyi ci yéen muy ay jeexit yoo xam ne yu rëy rëy la ndax Serigne Touba def na ci yéen juróomi at fanaan fa ñaari junniy bis jàng fa junni kaamil moom jëmmi boppam rek sëniñ Touba nee na ci yéen jolof jàng naa fi junniy kaamil yu ma bokkut ak kenn te bokkut ak ñeen fukk ñi nga xam ne def leen a sason ne leen dee leen jàng alxuraan suba ngoon guddeeg bëccëg jàng alxuraan daal na leen ñaari mbir tàggaleeg moom mooy ngant dem di yeesluwaat walla ngeen war a xéwlu. wala ngeen war a mos nelaw lu dul ñett yooyu nekk leen ci alxuraan ji moo tax ba muy jóge ci yéen di jëm Jurbel dafa woo sëñ Amsatu Jaxate woo Seex Masàmba ñoom ñaar ñu ñëw mu ne leen ñaata kaamil ngeen jàng ñu ne ko Mbàkke xamuñ ko ndax ñun ñeen fukk lañ te jàng rek lañ doon def te ñun ñëpp mokkal waaye sëñ Tuubaa dana ko Masàmba yéen a defal yàlla lu ngeen xamut waaye Ahmadou bàmba lu mu defal yàlla xam na ko Masàmba man dey biig laa xat mu sama junneelu kaamil kon ci suufi ci yéen Jolof la Serigne Touba jàngi junni kaamil yoo xam ne bokku ko kenn loolu nag boo ko xoolee ci ñaari junni bis kon bis bu ne Serigne Touba fanweeri isib la doon jàng moo tax Serigne Moussa Kane ku mokkaloon boo bee jësaawu zakkoor jàngal bile boo bàyyi nawet bilee di noor xaajum kaw la ak moom suuf mooy kaamil bambaay misaalam alxuraan mooy kaamil loolu sëñ Moussa waxam jooju dafa méngoog waqafu Serigne Touba ca ci yeen Jolof kon ñoom ñii bu ñu taxawalee kuréel boobu di ci yëngu di ci liggéey invité soxna si mu dem ci ceeni jolof ñu ànd ak njabootu maam Cheikh Issa Diène defal ko tiranga yoo xam ne kenn xamul nu tiranga yoo toll waaye ñu àndaat moom dem Sarsara ngir loole ñu séq kenn ku ne di ko dundal ba ci koor gi ñu ñëwaat fi tey jii di bisu waa Sarsara te ñëpp ngi laaj fan la Sarsara toll waajtaay wi ak yëpp te loolu tam li ñu ci jot a xam te am ci ndigal itam danañ ko leeral ndax démbu groupe bi nga xam ne sax ci la bi nekk ñu ngi ma laaj ne ma dañoo bëggoon nga wax ñu dara ci Sarsara waaye li ñu ci xamal néew rek te sañ koo wax te yem ci loola di ndigal loolu tam danañ ko leeral ngir kenn ku nekk xam ni muy waaje kon sëriñ Habib Cheikh Mamadou Lamine soxna si mu ngi leen di sant baax ci seen i taxawaay di leen xamal ne ñaari liggéey benn liggéey la muy liggéey ba sëñ Tuubaa liggéey Gabon ak liggéey ba mu liggéey Gànnaar ak liggéey bi mu liggéey ci yéen ak ba mu def njaareen ak fu mu mas a jaar kuréel yooyu yëpp dañoo war a laxasoo nekk benn kenn ku nekk di jàppale sa morom li yonent bi wax ci ab ne ay julit dañoo war mel ni ab tabax birig bu nu yaay dëgëral sa morom waaye kuréel yooyu kuréel gum ci mën a doon dañoo war di àndandoo di waaj di ko ziyaare di joo ngir ñu ne ñu am tawfeex Sëriñ Tuubaa loolu nag yéen ngi dox waar wu rëy ñu ngi leen ci sant baat leen ci gërëm di leen xamal ne dinañu jàppaat beneen bis boo xam ne ab bisu daje doon ci kër Sëriñ tubaa gi ci Daaru Marnaan nekk bisub waxtaan bisub sottante xalaat bisub jaayante ndax Sarsara dañ koo tuddi Seex Mazamba te buñ ko doon waaj juróomi atam dañoo bëgg suñ ci àggee ñu xam ne Seex Mazamba moo gën a néewi at ci ñi sëñ moor Anta Sali jur waaye itteem ca kaw la ne te loolu borom ñëpp ko wax loola nag dafa war a feeñ ci bisam feeñ goo xam ne gu rëy lay doon te loola soxna si sëriñ siiri mu sëñ Mor laa dane ñaari cër la am ci sarsaara ji di ñëw mooy cër ba mu amoon naka jekk ci sarsaara waaye la ca dolleeku nag mooy cër bi sëñ Masamba am tañ jox ko ko ren mu boole ñaari cër yëpp téye ko kon nag sarsaara ren war nañ ko defee noo xam ne mosuñ ko defee benn sarsaara kon loolu tam ñu ngi koy wax bokki taalibe am na karawaan bu ñu war a def tam boo xam ne karawaan bi danañ ko tàmbulee mbuur jaar ci ay dëkk yu bari ba dem ndakaaru fa lañ koy tëjee incha allahu taala bu dee ca masaalikul jinaan lay doon danañ ko wax nit ñi su dee beneen barab lay doon tam danañ ko wax nit ñi waaye danañ ko ànd ak commission bi nga xam ne ñoo yor muske Sarsara te sëriñ Mouhamadou Soxna jiite ko nga xam ne ñaar fukki membre ñu ngi ci ak benn yoo xam ne lépp lu jëm ci jumaay Sarsara léegi ñoo koy taxaw ñoom itam danañ ànd ak ñoom ci karawaan boobu ànd ko bokki talib yëpp incha allahu taala danañ jaar tam ci yéen barab yu bare bare incha allahu taala loolu tamit information la yoo xam ne dañu ko doon joxe li ci dooleekuwaat nag muy ci wàllu sarsaara ñu wax leen tam tolluwaay bi ndax ñu bëri ngi koy laaj tey nit ñi namm nañ ko tey it bëgg nañ cee dañ kumpa waaye ku ne xam ne ne murit ci ndigal rek lay dox laa taf zay an bi xayri isni fali isnu zartun fii xabuli zahni ndigal li ci Cheikh Mamadou Mountakha lay bàyyi ko jaar ci Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtala mu wàcce ko nag ci soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ci réew mi mu war koo jottali bokki taalibe yi sëriñ Sidi nag daaw bareen mi ngi woon fii fi Touba waaye bërki démb nag dem na Nouakchott ngir waajal juróomi fan ci weeru zawaal mooy weeru korite te bis boobu mooy bis bi sëriñ Touba njëkk a génne alwirdul maxuus minallahi bi wasitati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wax ne ku yoroon wenn wird te mënoo koo booleeg maxuus bàyyil wird wa nga yoroon te jàpp maxuus ku ko mën a booleeg wird wa nga yoroon nag nuurun ala nuur leer la ci kaw leer jox ko ay naari gànnaar jox ko ay nit ñu baax sëriñ bi tam da caa teg ne wirde wi day képp ku koy wirde soo bëggee dem aljana da nga dem ajana soo bëggut dem ajana da nga dem ajana ñëpp bëgg dem ajana waaye da bëgg na joxe assurance ci li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox sëriñ Sidi nag dane suñu àggee ci juróomi fan ci weeru zawaal ba ñu taxawee juróomi fan yi ba noppi su juróomi fan yi noppee danañu def ab déclaration boo xam ne ci la ñuy xamle su fekkee dañuy jàpp sarsaara date bi su fekkee ne tam gàllankoor am na ba dañ ko jàpp tam ci bis boobu danañ ko siiwal waaye ci bisu juróomi fan ci weeru korite ca Mauritanie ginnaaw bu ñu taxawee juróomi fan yi ba noppi fédération Seexul Xadim bi sëñ ma Jóob Jóob jiite ak sëriñ siri mu Seex Mamadul Muntaxaa mi nga xamante ne bii nag moo fa nekk Seex Mamadul Muntaxaa danañ jàpp datu sar saara wala ñu wax bokk yi ne su fekkee munta nekk kat ay la yéwén dañu koy bàyyi ba déwén waaye loolu tam teewul jox guñ jox cir soxna maam Isa Mbàkke ahlu kafe tax na waxtaan nañ ci ak moom ba laaj ko ci ay xalaatam ba soxna si jël ay xalaatam jottuli leen ko ñu war a boole nag seen xalaat yooyu ak xalaati soxna si ak xalaat si waa fédération bi ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk Mauritanie ak autorités yi nekk Sénégal ci juróomi fan ci weeru zawal ba xam danañ mën a jàpp Sarsara wala duñ ko mën a jàpp su fekkee nag danañ ko mën a jàpp incha allahu taala danañ ko def lu jiitu ñu tabaski su fekkee nag duñ ko mën a jàpp tam danañ ko leeral bu juróomi fan yi weesoo ba ñëpp xam ne noonu lay demee suñu ko jàppee nag su suñu tàmbalee karawaan bi day nekk wàccaayu sarsaar wi completement su fekkee ne jàppuñ ko tam ñun lañ jàppoon duñ ko bàyyi mooy kon danañu continuer di soññ murid yi ak di def ay ndaje ak di def ay plateau ci télévision yi ak di woote ay jaayante ak i waxtaan ak i sottante xalaat ba gën koo mën a jekkuwaat incha allahu taala kon loolu mooy information yi nga xam ne ñu ko doon laaj noonu lañ ko mën a tënkale ci worma ak loo xam ne ay kilifa dañ koy waxtaanee te noppeegul te duñ am sañ-sañu daal di wax ne bi sàngam la wala weer sàngam la waaye nun daal lañ ko mën a tënkee ci loo xam ne ñi nga xam ne ñëpp bëggoon nañ ci information nañ ko xam ne noonu waaye nag kuñ dul xaar da ngay xaare tey ginnaaw yow saa wuñ la digalee nga jóg kon na ñëpp waaj kenn ku ne jekkal sa pièce na jekk sa sa bu dee carte d'identité la wala bu dee bu dee permis la wala bu dee passeport la na jekk bu dee paas na jekk bu dee paase na jekk bu dee addiyee na jekk bu dee war a jox jumaa ji na jekk suñ nee acca rek ñu ne acca ndax murit moom du waaj kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu wax di sant tam waa presse bi te di leen gërëm ndax presse dafa am solo ndax ki nekkul fii tey li koy xamal li nekk fii mooy ñii rek te jottali xibaar dafa bokk ci li yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ko woon nag ma jottali da yonent bi dane woon na ngeen ma jottalil donte benn aaya la ba liqu anni walaw aaya loolu la waxoon kon nag bu ñu toogee fii nekk ci ndogu yi toog fii soxna si def lu baax lii muy def ak bokki taalibe yi mu ko àndal am ñoo xam ne ñu nga ci ay ruq am ñu sori ñoo xam ne ñëwuñ fii ñooñu kat li lañ ci mën a jotale mooy presse bi ñoom nag dañoo fasanteeg soxna si kóllëre gu dëgër te dëggu te man presse dama cee yëngu ba xam ko xam li ci nekk lépp damay wax ne presse ku mu xool ba ne kii ku baax la ku baax la ndax ñoom dañoo dañ kumpa ci lépp ndax dañuy wax ne presse mooy troisième pouvoir kon nag ñoom buñ xoolee soxna si ba xam ne ci dëgg la nekk xool ko ba xam ne li muy liggéey Serigne Touba lu ko jar la ñu xam ne ñoom ay taalibi Serigne Touba lañ ñu ñëw ànd ak soxna si ci liggéey bi di ci def seen ñàkk sax ak seen doole ndax bi Serigne Cheikh wàccee liggéey dañoo àndandoo ak seen caméra yi ñëw joxe seenum njaal soxna si soññ soññ ko ci liggéey bi mu soññ leen ci liggéey bi kon ñoom li ñuy def dëgg la am nañ ab groupe boo xam ne man maa ngi ci biir groupe bi soxna saa ngi ci biir groupe bi dañ may wax ne ma lépp lu soxna si xew le nga ko wax ci groupe bi ñu ñëw couvrir ko léeg-léeg sax man maa leen di yërëm ngir xam seeni tabja tabja ba du ma leen wax yenn yi waaye lépp lu njëkk dañu ñëw bi koor gi tàmbalee ba fii nu toll li ñu dugal ci loo xam ne ay liggéey liggéeyu ahlu kafe la loolu suñu ko doon fay ay millions yu baree koy fay waaye ngërëmal Sëriñ Tuubaa lañ ci sàkku kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu te di leen gërëm li may jeexalee nag mooy lambi yàlla Sëñ Tuubaa daan sëñ bi rekk daan Sëñ Tuubaa dafa am ñetti victoire yoo xam ne kenn mësu koo am ku dul moom victoire bu njëkk bi mooy sëñ tubaa day der bu ñuul te daan der bu xees te der bu ñuul mësta daan der bu xees ci taarix loolu benn la ci victoire sëñ tubaa sëñ tubaa daan na tubaab yi daan naari gànnaar yi te ay der yu xees lañ muy der bu ñuul muy benn victoire beneen victoire bi kenn mësta am mooy sëriñ tubaa kenn la ku daan mbooloo ba muy dem gabon dañ ne ko may nañ la fukki nit nga ànd ak ñoom ñu di la jàppale sëñ tubaa ne sama jëmi bopp doy na ma ndax su ma àndee fukki nit su ma ñëwee dañ naan maa fukk ñu ñoo ànd daan te man képp daan moo tax sëñ Abdou Lahad ne ba muy bind amul ku nekk ci ginnaawam doon wax amin kon kenn la ku daan mbooloo moo tax sëñ Moussa Ka ne ko kenn nga ko wecci mbooloo mooy ñaari victoire ñetteelu victoire bi nag mooy ab julit bu daan ab yéefar ba toog ci kawam na nga xam ne noonu la ahlu badar daane woon yéefar ya ca weeru koor wa julit ñi di juróom-ñaar fukk yéefar yi di junni waaye yéefar yi am victoire ci seen kaw victoire boobu jullit ñi laa bëgg a wax ñi am victoire ci kaw yéefar yi Serigne Touba tam moo am victoire ci kaw yéefar yi moo tax sëñ sëñ Moussa sëñ sëñ sëñ Mbay Jaxate ne ko ma gàddu bu wér man bët jëweel sama ndënd mii te way Serigne Touba ki xëy boole ñëpp daan ñoom daan ñëpp nag bokk na ci ñi doon am xam-xam bi Serigne bi ñëwee daa seexal ku xamul aw baa kon ñaamoon xam-xam noppi nañ ñi nga xam ne tam dañ ne woon kenn mun ta jaar ci buntu buntub yàlla te jaaroo ci ñoon sëñ tubaa da leen a teggi àgg ci yàlla te gisuñ ko tubaab yi tam dañ ne kuñ mas a lool teg nañ la ci suuf sëriñ tubaa daan tubaab yi dil siwaat fii kon sëriñ bi moo daan daan gëm daan nag daana leer waxtu wu ne waaye dama ne kooru ren gi dafa gën a wane victoire du sëriñ tubaa lim ko wanee mooy réew mi dafa am penku am digg am sow sow ba mooy ndakaaru ndakaaru ku ne xam ne ne sëñ tubaa fa daan ndax restaurant yi war wër Masaalik jaayatuñ ndax xéwal yi murid yi indi kon sow bi sëñ Tuubaa fa daan digg bi njaareem la te mooy seesu Cheikh Mamadou Bachir sëñ Tuubaa am fukki at fukki at ak juróom tey boo demee ful kuwaay yaa ngi fay jolli fa la sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ am di mii di togge ndogu ya ay juróomi téeméeri mbana muy jëm si Touba jëm Dakaaru jëm fu ne kon ci digg bi sëñ Touba daan waaye penk bi mooy Touba sëñ Touba daan moo tax mu ne woon sëñ Mbay jakate moo tax mu ne woon maam sëñ Mbay Saar maam maam Mbay Saar ne ko Mbàkke yow képp laa mas a gis koo xam ne da xeex ba daan ñëpp te te bàkkuwoo ku mas a xeex ba daan da ngay waaye nag mbër mu ndaw mooy bàkku waaye mu mag du bàkku ma maa ngi joxe nag benn tegtal boo xam ne tegtal boobu mën naa am sax dana xaw a kii waaye dama koy joxe rek pour que nit ñi mën a xam gis nga suñu nekkee sax ci terrain yi football ki mus a dugal bi su dugalee day waddantu bañ gaañ ko ndax daa ndax daa a dugal waaye ki tàmm dugal bu dugalee ndànk lay dox ndax moom daa tàmm dugal waaye ki mus a dugal moom bu dugalee day waddantu bañ gaañ ko loolu mooy sëriñ bi bi mu xamee ne daan na moom du daan ba pare di puukare waaye day wut yu yoo xam ne yooyu ci la ñuy xamee ne moo daan moo tax sëñ Mbay Jaxate ne ko lu tax nga xeex ba daan te puukare woo mu ne ko bay Jaxate du ma puukare mu ne ko man nag kon naa la bàkkul ndax ku mas a daan bàkku mu ne ko Mbay Jaxate noo may mu ne ko danaala ko won dem foor ndënd ya sa sëñ sëñ sëñ Mbay Sarr wax foor ndënd ya di tëgg ndënd yi wut si kër gi mag ñi jiitu ne ko Mbàkke am na lu xew de li ngay ci kër gi tey jii am na ku koy def di ñëw mbay saar sëñ tubaa ne mag mu toll ni mbay saar su defee dara bu ñëwee dana ko layal sëñ mbay saar tëgg ba ba àkk sëñ tubaa sëñ tubaa ne ko mbay saar toog leen sëñ mbay saar toog ak waa dënd yi mu ne ko mbay saar lii nga def ana lu tax nga def ko mu ne ko mbàkke li ma la waxoon bàkkul rek tax ma def ko dangaa xare ba daan te bàkkuwoo ma di la bàkkul waaye sëñ tubaa dane ko mbay saar dinaa bàkku waaye waxtu ba may bàkku exeegul mu ne ko mbàkke kañ ngay bàkku yow am nga victoire ñi nga doon xeexal ñëpp a suuf kon looy xaar ci bàkku mu ne ko ak jumaa jey saaw bàkku mbay mbay saar Touba su melee na ma bëgg mu mel jumaa ja samp mel na ma bëgg ma mel du ma wax dara waaye ku ñëw Touba gis jumaa ji xam ne bàkku naa jumaa ji nag li li ma koy jeexale mooy sëriñ sëriñ sëñ sëñ mën dumbi xabaan moo moo jóge fii ci jumaa ji dem daaru xudus xuse bu gudd la ma koy dagg li ma ci soxla rek laay jël sëñ Touba ne ko mën dumbi xabaan mu ne ko Mbàkke mu ne ko foofee dara nekk gut te tabax gi mujj ci suuf fa lay tabax ca lañ koy tabax xanaa xamoo ne xanaa xamoo ne Mandoumbe tabax googee bu taxawee ba am ñeen fukki at yu teg sooroor yi jëg ca kaw la ngeen gënoon a bëgg ca ndaran Dakaaru da ngeen koy romb ci kippaaru jumaa ji du ngeen ko soxla loolu nag mooy tekki ndogo yi ndogo yi la ndogo yi ndogo yi ñaata camion la fi Cheikh Ibra Fall indi ñaata nag la si am di rey ñaata ginaar waaye nag noona lañ koy toppe di ko toppee ba egg si soxna maam Isa ak ak kafe ak mboolem ku doon indi ndogu fii la nga fi indi sama musuku tiim kenn ci ñun kuñ masalaal maamam ak ngoon mooy dog amut waaye ki fi indi ndogu yi ba ñëpp dog ba desal ba xar yi sax di ndogu man sama xare ñaari saako yu mburu jox naa leen ko ci koor gi te fii laa ko jëlee waaye dama ne kookee nga xam ne nag moo doon indi ndogu yi sëñ Abdoulaye nee na am na koor goo xam ne nam ko gàttandoo yaa xayra dayfin atabil bisri wal madadi ba na mu ko gungee yaasal busarati bil ayati wa suri ñam tabbiwul gémmiñam lu ci togg lekku ko ñu ne sëñ Abdou Lahad nu doon def mu ne da doon xool garab gi gën a lewet ci garab yi mu rocci ko sujj sujjal ko muucu ndox ma yàbbi garawaay gi moom lay xadde moom lay doge ba weer wi jeex sëñ Abdou ne kooki ku ñuy tudd di ko tudd dañu lay xas kon nag lépp luñ fi gis ci am nooflaay lépp lu luñ fi gis ci tiranga liggéey sëñ Tuubaa ba ak coonoom boobee la kon nag li am solo mooy delloo ko njukkal sant ko xam ne lépp mooma ñëw fii fanweeri fan mu sa doge këram loolu ngor rek la ak jom ak wane ni sëñ Touba yaa ngi ci ab toolam di ko bayal waaye bu ko neexoon mooy doge këram te du teemu sant Mbàkke du teemu bokk si sëñ Masamba du teemu am garaat waaye daa bëgg a sagal sëñ Touba da bëgg dimbali taalibi sëñ Touba yi ndax sëñ Touba nit ñi képp ko fi indi woon sëñ Touba nee na su du doon alxuraan du sunna du bëgg a nit ñi du ma fanaan ci àddina benn bis moo tax ku la gën a mën a jëriñ nit ñi moo la gën fa yàlla te moom jëriñ nit ñi rek lay def kon a ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ñëpp di ñaan ni ñu ko defee ren yàlla nañ ko defee noonu déwén di sant tam nag koo xam ne munuñ koo bañ a sant ndax da di murit muy maître Madické Niang maître Madické Niang bi koor gi tàmbalee ci premier jour bi dafay yónnee oto suukar bu ànd ak ñu demaat ba ci digg koor gi mu indiwaat beneen oto bu ànd kafe café te mosu fee ñëw da koy yónnee ku ñuy wax fàlluloo la koy yónni waaye ker fàlluloo bi mu ñëwee ma ne ko dañoo bëggoon a jox la ay kàddu yoo sante ma Madické dane ma nee na li muy def sëñ Tuubaa tax te soxna si doy na ko sëkk jërum ko wax benn baat kon nag sëñ Abdou dane woon bu leen it defalee loo xam ne maanaam wanu ko kenn yow mi mu ko defal yaa ko war a wax kon nag bu fekkee gëm sëñ ma Masamba ak xam ne soxna si day liggéeyal Serigne Touba moo tax muy jël alalam di ko ci def kon war nañ ko sant te barabam soxna Issa Dieye mi waajur sëñ Masamba ci Daaru Manaan ci koor gii la ko defar bu mucc ayib kon nag mi ngi liggéey Serigne Touba xam nga ne lu tax wax ko defar na barabu sëñ Masamba def ci 8 millions lii nag li tax ñu koy wax mooy dafa liggéeyal sëñ Touba ba sëñ Mountakha ne ko yow politique bi nga nekkoon sax bàyyi ko ndax yow da bokk ci soldat yi Serigne Touba sarsaara jii di ñëw tam moo tax jox nañ ko ci ab cër ndax lu ñuy defal sëñ Masamba ma Madické am na ci ab cër kon cër bi mu am ci sëñ Masamba ci sarsaara ji di ñëw danañ ko ko joxaat moo xam ne sëñ Masamba lañ tuddee li nga xamante ne bii mooy sarsaara ji kon ñu ngi sant bokki taalib yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh inna na ila sarsaara qad qasadu siyaarati faaraqu daarayni aw saara إن الذين إلى صرصار قد قصدوا سيارتي فارقوا الدارين أوسارا